génn bi aussi ñu xool li ñuy génné ñuy génn li nga xamni farata la ñu génn bu farata amul nak ñu tok suñu kër. ñëw nañu fi tay suñu fi joggé dañuy dem marché central le poisson jaarale aussi maire bu mag bi muy maire Pikine jaar fa tamit désinfecté ko lolu da di lo xamante li liggéey la bu am solo ci xex bi nga xam ne ñu koy xex coronavirus donc vraiment c'est une occasion pour gërëm leen sant leen bu baax a baax mais aussi di ci profito di wowat encore askanu Pikine yépp pour que ñu xamné geste barrière yoyu ñuy wax.

ut nu ñu def bay ñu porter masque yi waxna ko léegi léegi yakarna naa ne xëy na muy demee surtout cas communautaire yi nga xamné mu ngi commencé bari bu na ré continuer ni def yakarna nguur gi warna na mën taxaw woté pour que ñepp nak di sol masque